jërëjëf mbokk yi asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu di leen ziare di wax ni li ñu dajale fii du lu tuuti ci réew mi Sénégal war nañoo moytu sàggane loo xam ne yàq na ay réew taal na ay réew rawatina fii. ci suñu continent di Afrique li xew assemblée du ci wax lu bari lu dul naqarlu ko ñaawlu ko waaye ñun duñu ay député am nañu ñu toogal biir assemblée te mat nañ ko te lañ fa war a def dinañ ko def ba mat sëkk ndax am nañu fulla gi am nañu sañ-sañ bi am nañu doole gi am nañu xam-xam gi bu ñu tollee ci réew foo xam ne fu waay làqatoo ci gannaaw nguur rekk jàpp nga ne lu la neex mën nga koo def ndax ku ñeme dañ laa déy lu toll ni sëñ Moustapha Sy man de démb waxtu wii may wax ak yéen maa ngi woon ci àll ba ci dëkku kaw yi ci sama tournée amul dëkk bu ma dugg te fekk ma ay taalibe sëñ Moustapha Sy kon ku ni toll benn jëmm joo xam ne lenn walla kenn toppul sa gannaaw am sañ-sañ taxaw kàddu bu ñaaw teg ci moom dafa fekk ñu dafa fekk ñu jox ko sañ-sañ waaye Sénégal gii xam nañ ni bu dul woon sañ-sañ bi ñu ko jox téeméeri junni xelam may ko mu ñëw taxaw ne day yëkkati kàddu ci sëñ teg ko ci sëñ Moustapha Sy loolu nag liñ ci wax ak suñuy député wax nañ leen ko te am nañ taxawaay buñ ci taxaw démb te li andi lii lépp nag mooy lot gi ñu lott ci mën topp rythme bi nga xam ne suñuy député teg nañ leen ko bi assemblée bi commencé ba léegi man de rëccuwuma lu tax dew ma assemblée ndax député yi ma gis ñu toog sama gannaaw la ñuy def assemblée gaw ma ni man mën naa ko def ndax dañ leen a dominer qualitativement d'abord dans le débat qualitatif yéen ñii ñëpp di média di couvrir assemblée xam ngeen ni jegante bañ nañ ko bu booy xool li nit ñi di génn di ko joxe dafa mel ni député Yewwi Askan Wi rek ñoo nekk assemblée nationale. loolu nag am na lu mu jur ci ñoom ci njàqare te amuñu luñ koy remplacer lu dul ay saaga ak ay xaste waaye nga saaga leader yi toog fii ñun miis nañu loolu te ñun citoyen ordinaire lañu. ñi ànd ak ñun duñu suñuy taalibe yaakaar gi ñu yaakaar ci ñun ñu yar leen ci diine taxul ñu ànd ak ñun ñi ànd ak ñun projet lañu bokk bis bu ñu ko bokkatul it ku nekk dem yoonam moo tax mu yem ci ñun ñun loolu amul problème ci ñun daf ñuy sax renforcer ndax lu ñu may dëgër ak doole ci réew mi rek seeni xaste ak seeni saaga la waaye ku ne woon réew mu mel ni Sénégal dinañu dox ba nit am sañ-sañu taxaw ci li nga xam ne mooy màndargal ndajeeb sénégalais yépp muy assemblée nationale yëkkati fa kàddu teg ko ci deru nitu diine teg ko ci deru kilifa diine kuñ ko waxoon nga ne loolu mënul am moo tax démb dégg naa benn député defe naa abala ne la ligne rouge ay été franchie loolu nag suñu député yi dinañu am fulla ba la ñu war a ci biir assemblée dinañ ko régler defe naa biram wax na ko ci waaye fi may waxee ak yi mooy ñu delloo ci seen xel xam ni mbir mi day raam di dem yegg na ci ñàkk ba nag ay weer ak ay at a ngi nii ñuy alerter Sénégal yi ci Macky Sall li mu andi Sénégal te mosuñu koo xam dama bëgg ñuy dégluwante te di fagaru balaa musiba di am ndax waxu waasoo mosul am ci réew mi ci Macky Sall la amee waasoo te waasoo taal na Rwanda waasoo taal na Libéria waasoo taal na euh, nigeria waasoo taal na feneen ak feneen ak fereen foo dugal waxu waasoo rek andi nga musiba ci jamono Macky Sall la ñu njëkk a dégg waxu waasoo diw ethnie bii la bokk diw région bii la bokk diw tarixa bii la bokk diw lii la bokk loolu ci Macky Sall lañ ko mës dégg musut am li may wax nii dama koy baamu rek te lu nit ñi di nguur nguuri la ci suuf waaye nañuy ñeme wax ji ndax wax goo ragal rek moo lay dabi ëllëg ci Macky Sall la ñu njëkk a dégg loolu fii ci senegal te moom ak ay ñoñam ñoo ko yor di ko wax bis bu ne ci Macky Sall la ñu njëkk a dégg ndaw soosu li mu wax démb bu doon kenn ci député yeewi askan yi walla wala wala opposition moo ko wax kon réew mi xar na bu yàgg ci moom lañu mës gis loolu tey kilifa diine yi la ñuy attaqué publiquement publiquement ñëpp di ko gis ci koo xam ne li gën a tuuti ci njabootam mënoon na ko faj te suñu moytul fa lay mujjee de nañ ci bàyyi xel parce que ku yor njaboot njaboot gi am fum ko teg nit ñëw taxaw ñeme taxaw fële ñëw wax lu ñaaw lu mel noonu micro yëpp taxaw te mu leer ni ki gën a tuuti ci njabootam mën na ko fajal boppam nañu bàyyi xel ci li xew ci réew mi te kuy boroom kàddu nga àddu ci te lépp benn responsable la mooy makisal te dara waralu ko lu dul bëgg a moy ci nguur ci loo xam ne àndul ak bëgg-bëgg sénégalais ci jamono ji te li may wax nee naa leen ay fan a ngi nii ñaari weer a ngi nii maa ci àll bi ñaari weer a ngi nii dëkk dëkkaan sénégalais yi doyal nañu sëkk sëkk sëkk sëkk ci makisal loolu moom lu mu am firnde bu leer la nga dellusi ñu gis ni ci yoon mënatul taxaw laaj baatu senegal yi waaye nee faw mu essayer loolu pour mu def ko il faut mu créer benn climat de terreur mooy xoqatal nit ñi xoqatal boobu nag moo indi saaga yi ak xaste yi ngeen di dégg te ñii dañoo ñu njëkk ci politique politique yàgg naa métti Sénégal de waaye li ñu gis jamono ji musul am ci politique ci senegal musut am te fii lay mujjee am nag bu soobee yàlla ndax page boobu dinañ ko tëj ndax li gën a am solo ci suñuy richesse ñun fii Sénégal mooy jàmm bu ñu ko fàtte mukk te li taal fitna fayu ko li ñu gis nii terreur bi muy terreur verbale d'abord ñu koy essayer te mënuñu terroriser kenn dégg naa démb député bu ko wax ci waa Yewwi Askan Wi chaque jour ma ne leen làqatu ci gannaaw état di fëgg sa dënn yomb na waaye xam nañ ni bu police gendarmerie jege woon suñu diggante gëm naa ni ñu bëri ci ñoom duñu fanaan fii ci dëkk bi tey climat de terreur ci di faat ay bakkan yu kenn mënul expliquer te doo dégg benn service habilité de l'État ñi war a def liggéey bi def ko ba sénégalais yi xam lan moo faat bakkan yi climat de terreur ci ku yëngatu rek ñu jàpp tëj kaso donc stratégie bu leer dañu teg ñoom nun nag xam nañ fi ñu jëm ak ñoom xam nañ fi ñu jëm ak ñoom de yàkkamte wuñu li ñuy daaneele rek di ko wax ne Sénégalais yëpp continuer di fagaru rek di waajal parce que ku yaakaar ni yaa ëppale sa moroom fii ci réew ku yaakaar ni mën nga jaay Sénégalais yi lu la neex yaa ngi nax sa bopp de jarul xëccoo jarul yàkkam jarul xuloo léegi ñu nekkee di ko liggéey te mu def résultat ci Sénégalais te ñaari élection yu génn firndeel ko kenn ku ne na wéy ci loolu rek dina am fu ñuy toll nag dinañ xam ni fii ragal amu fi kuy tiit amu fi kuy daw amu fi te kenn ëpp ñu doole ci réew mi ndax askan wi mooy doole réew mi te askan wi nag kenn ëppale wuñ jamono ji kon ñi ngi dellu naqarlu lu xew ne lépp nag benn nit la ci réew mi te ku ko ñemee wax ak ku ko ñemewul wax ñépp xam nañ ko fii muy Macky Sall ci boppam bu ngeen xoolee ñi mu yóbbu assemblée nationale ak ñi mu def ci gouvernement benn màndarga rek benn qualification mooy mën naa saaga mën naa xaste moo tax même mag ñi doon wax léeg-léeg yenn mag yi doon wax ah man de dama koo sopp ndax dafa yaru dem nañ ba xippi seen bët léegi parce mii kër ak yaru bokkuñu ki ñeme li muy def di ko wax ak kii ut ay nit yu mu jox ay poste daan leen dem leen waxal ma lu ñaaw li fi wax lu ñaaw yépp ci benn source la jóge te ñépp xam nañ ku leen yónni ñépp xam leen ku leen gemb kon moom mooy l'unique et le seul responsable jàpp naa ni moom tey moo saagalu Serigne Moustapha Sy ndax su doon loolu ci saa si lañ doon jël ñoom avant assemblée nationale war a jël sanction ci saa si la ñuy jël sanction politique tey député yeewi askan bi bu taxawoon def lu toll noonu yeewi askan bi dina jël sanction politique pour wane ni ñun ànduñoo ko lii est-ce que ñoom dinañ jël sanction politique duñ ko def moo tax bi mu amee ñoom ñëpp dañoo tàccoondoo kon du ma gën a guddal réew mi li fii raam fi mu jëm baaxut baaxul de te loolu mooy jubluwaay Macky Sall su ma mënul lekkaat ci cere gi naa ci xëpp suuf ku bëgg sa réew nag doo ko ñaanal guerre civile doo ko ñaanal fitna nañ la ko joxe woon ci njekk ak rafetal noonu nga koy delloo ci ni mu gën a rafetal waaye loolu c'est pas Macky Sall ngi leen di gërëm di leen sant asalaamaaleykum